ci atu yooyu ngeen am le parti démocratique sénégalais jamono ji euh, c'est la pêche aujourd'hui ci li nga xam ne mooy parrainage yi kenn ku ci ne yaa ngi dem di wuti parrainage maintenant jamono jooju le candidat du PDS kenn gisu ko est-ce que nuruwul peut-être armée boo xamante ne troupe bu amul général boo xamante ne naam ñenn ñi ñu ngi dugg fu nekk di wut ay parrain mais ki tax aujourd'hui tamuy incarné de parti Karim Wade à quatre mois de la présidentielle introuvable le, le regard est maladroit en moins de quatre mois sax Fatou je te rappelle. le, le regard mm-hmm. il n'est pas là. il mobilise son parti son parti tout le monde l'a vu de vos il est mobilisé. te kii muy mobilisé nekku fi mais parce que daf ko yaakaar dina ñëw te loolu xam nañ dina ñëw mais par contre am na fi nekk te mobilisé wuñu mais yéen kay wax leen ñi fi nekk bëgg te mobilisé wuñu. waaw ñun ñu toogee ñu laaj. waaw ngeen laaj ma maa leen koy wax ma ne. donc loolu mooy. deux. mais écoute. Mm. Eh, mais toog ngeen fi di wax noo ñun ñun pareguñ yéen ñuy wax pareguñ ma ñëw fi ngeen dem ma ñu pare ma ne yéen da ma yëpp. Mm-hmm. yéen ngeen am président de la république boobu ñu may carte blanche. Mm-hmm. mu téye carte bi ñu weex ba ñuul parce que mënul tànn nit. mu tànn ñun ba pare nga pare kooku moo ñu gën a pare ñun ñoo ko gën a pare fuuf. foofu waaye seen pourquoi il tarde euh, euh, lu tax boobu ba tey ñëwul Sénégal est-ce que il est convaincu gëm na le projet bi nga xamante ne depuis yéen 2019 yéen a ngi ko porté gis bi nekk ci mbedd bi hmm. boo ko jëloon ne ko kaay ñu def la candidat PDS léegi mu wér léegi mu wér donc moom il est convaincu du projet hmm. c'est ce que vous voulez me dire en fait parce que loolu c'est conviction mais est-ce que cette année 2024 Karim Wade sera est-ce que du même scénario que 2019 moo nar a amaat mm-hmm. ngeen defal ko parrainage dossier ko déposer ko dossier candidature xam nga c'est dommage mm-hmm. c'est dommage que moo tax politique yi di leen tromper toujours politique loolu moo tax parce que yéen vous ne voulez que l'expectaculaire mu mm-hmm. dans ce processus la déggu leen nit wax ci ba man maa ñëw ne Lamine Gaye léegi lañ fi wax ne le dialogue a été un élément important dans la dans la situation politique actuelle. Mmh. Pour la première fois, une date approximative a été donnée, c'est Lamine Thiam. C'est dans le dialogue. Mmh. mu ne leen lan dina ñëw. dina ñëw. après la dialogue. Mmh. dialogue bi dafay mi ngi bëgg a yàgg nag président. Ah, non attends tu parles de bi mu jeexee la fin du dialogue et après la dialogue c'est pas la même chose. Fadabdou moom tubaab la làkk te da koy jàngale. donc c'est après ba léegi nous sommes après le dialogue. oui mais mais attends maintenant maintenant j'évolue il a fait une émission que vous avez vue. il dit il peut vous assurer. que Karim Wade assistera à son congrès d'investiture. quand est-ce. loolu kañ la congrès d'investiture bi. mais congrès bi sax moo topp ci parrainage. au moins vous avez vous avez. donc entre novembre décembre. non loolu c'est pas la nga ciy ñëw parce que du ma leen jël lañ tànn. doo ko ci man. moo tax ba da koy bàyyi teg ko fële. c'est mois je suis sorti, j'ai rencontré des autorités religieuses envoyées par mon parti. J'ai rencontré plusieurs autorités religieuses du pays. Mm-hmm. wax leen la ma Karim wàdd ak suñu parti yónni ci moom. mu ngi waaj pare na. li ko tegoon tribunaux yi teggi nañ ko. Macky Sall ci boppam nee na moom daf ko bëgg a setal. Mm-hmm. léegi tout lui permet de venir takk naa ay bagages mu ngi ñëw bu ñëwee nag lii la soxla. Mm-hmm. nii lay diriger Sénégal. ci jàmm lu koy ute ci jàmm la koy amee ci jàmm la koy gouverner. est-ce qu'il aura sax ñoom. xanaa ñoom xëy na peut-être ay mouton de Fanélie la ñuy doon. Ah, euh, xarit Karim bu ñëwee ubbi enclos ñu dugg. parce que waa ma yeggali non ma yeggali. du ma la nangu du la may. ngay traité sénégalais yi. non non non dama bëgg a expliquer. alors cette expression est trop forte. je la retire je la retire mais pour dire. que moom bu fekkee ne nga ne après peut-être parrainage lay ñëw donc on peut de décembre. décembre. décembre janvier on publie la mois. liste des candidats léegi oui, oui. à moins deux mois de la publication de la liste des candidats nan la nit mën a ñëwee pour jiite 17 mhm. millions de sénégalais gisuñu ko dégguñu ko durant des années en un mois wala peut-être waa un mois sax mhm. lañ ah, ah, mhm. moom la dépendre ak yàlla yonent ñu ñëw ñu fekk dafa ñëw wax benn wax jiite leen te wax wax ñu ko nangu woon bëriwul. mais sauf qu'on est en ah a président sauf qu'on est en politique et qu'il a il y a des qui sont là laisse-moi continuer allez-y parce que li ma la du la neex li ma wax moo la neexul dama ne moom la moom bu ko sénégalais yi mayee te mayul leen ko sénégalais yi sañ nañ ko mhm. mais bu nekk yaakaar ne sénégalais yi may jox nañ la lépp te joxuñu la lépp def nañu politique quand même. def nañu opposition. def nañu pouvoir xam nañ yan condition lañ fi génne xam nañ ko xam nañu waxtu bi ñu lay joxee dara bu ñu la dul jox dara waxuma ne Sénégal yi ñu ko mais moom dina laaj Sénégal yi. mais mais maanaam li Ndeye Fatou di wax mooy est-ce qu'il aura le temps parce que quand même xanaa dina ñëw. wër wër wër le Sénégal. Mm. mais pour convaincre parce que tamit parti démocratique sénégalais avec tout le respect que nous devons que je pense que am nañu appareil ay mën nañu wax nañu ne présidentiel rendez-vous la ci benn nit. Mm-hmm. ak ak ak son peuple Karim bu ñëwee euh, man ci sama jàngat dina def le tour du Sénégal xanaa wax ak sénégalais yi expliquer leen li fi jotagum xew yëpp ci mais est-ce que loolu yëpp li ñu bëgg wax mooy est-ce qu'il aura justement le temps de de de de faire tout cela quand parce que euh, présidentiel bi tamit président de droit yegg si na de. waaw. lu ne xaj na fi. ne xaj na amul lu fi xajul. Mm-hmm. Mm-hmm. tout dépendra des situations. maanaam en deux, deux mois il peut faire le en tour du mois, Sénégal. Euh, on connaît d'ailleurs nous savons ñun ñaata nañ le tour du Sénégal. Mhm. def nañ ko ñetti yoon ak ak Omar Sarr. wala ñaari yoon def nañ ko ñaari yoon ak Saliou mhm. Dieng. ci micro bi mhm. def nañu tour du Sénégal cent fois bu yàggul lañ def si nous avons des représentations partout dans toutes les circonscriptions. on est présent. on est présent dans tous les hameaux et dans tous les villages. ñooñu ñooy def élection. mais on est présent ak je suis présent quand même ne léegi présent rendez-vous ak benn nit. ak ak peuple am nit mooy Karim aujourd'hui on a les Sénégalais ont besoin. de l'écouter de l'entendre ça ne sert à rien le rendez-vous avec à partir de la campagne il ñun ñoo yore suñu tempo. nous ne marchons pas boo écoute sañul loolu. si Karim et et s'il y avait tant tremblement de terre et la fin du monde. Eh, nous sommes sur l'ici Fatal Do. nous sommes sur l'ici. si euh, nous sommes sur l'ici quand nous sommes sur l'ici toutes personnes qui seront là il faut leur parler en ici. c'est pour dire que da nga si Karim euh, si que Karim ne sera pas là mais je vous dis et si la si la terre tremble. vous comparez les deux comme si. Euh, c'est toujours l'ici rek. si moom loo nekk def ci. parce que ut tontu moo ne nga ma sii man naa la wax ne ut tontu buy. moom ak seen waajtaay. alors pour pour avancer. attends attends ba léegi yow yaa ah, sañ ta bañ a ñëw parce que liggéey bi ngeen def. waaw liggéey bi ngeen def. autour de sa candidature. ah liggéey bi ngeen def autour de sa candidature. yow déjà wax nga léegi wër nga kilifa diine yëpp ne Karim dina ñëw. Fatou et si Karim euh, si Karim toog ba ba ne du ñëw loolu aussi c'est une c'est une question. xam ne si ça mérite quand même euh, ñu ñu bàyyi ci xel en tout cas. si alors pour pour ah oui alors pour pour peut-être ñu ñu mën avancer. Euh, renouvellement également ci li nga xam ne moo ñeel instance yu parti bi ak njaayum carte geeg yooyu mais am na coow boo xamante ne am na ci est-ce que moment bi baax na moment bi nga xamante ne ñu ngi wàcc élection ñuy wax renouvellement bu am ñàkk juboo pour certains ci parti démocratique bu Sénégal. mais baax na parce que njaboot gi daje nañu njaboot gi bu ñu dajewul du ñu xuloo Uh-huh. ku am téeméeri doom ñu dispersé doo dégg xuloo mais boo leen dajalee ci kër gi bu ñu yeewee xuloo am ci bal bi wala ci ndekki jox ma bopp mburu wala bii laay jël coow am hmm. mais capacité d'assurer la dynamique et la contrainte loolu mooy problème bi hmm. am na ñoo xam ne mënuñu ko am mais est-ce que ngeen kaaw ñi ñëwoon ci permanence ba pour ñaxtu fa attends attends donc loolu xam nañ ko ñun on a eu cent fois hmm. rien que pour ça curé Fara Ndiaye jusqu'à présent nous on a les conséquences mën na nekk ñeneen ñu dem. ak mais oui je suis d'accord. oui mais je suis d'accord mais l'essentiel de notre parti est mobilisé personne ne peut le contester. nous sommes en train de finir les renouvellements. Mmh. il y a des problèmes il y a des gens qui ont contesté et qui sont venus manifester. ils ont été reçus et les gens sont en train de travailler sur les dynamiques. société bi ngeen liggéey rédaction rek bi ngeen bokk ay xuloo mas dafa am yu métti métti wala ngeen dóorante wala ngeen saagante wala ngeen defar ci kër yëpp la nekk mais xam nga lan mooy problème ay nit bu ñuy ànd il faut ñu jotee mais jotee bi jusqu'à quel niveau quelle est la responsabilité bu ñu sañoon lii du am mhm. parce que ñun affaire bi dafa yomb ci ñun sëgg for bu fekkee ne sëgg for la bu ñuy mbëkkante ñun sëgg bi ba kenn ñoo jël ko bokk mhm. suñu fot lay doon mooy dal assemblée bi loolu moo ñu dul daal incha allah rabi maintenant nous sommes en travail sur ces questions ensuite mais il y a des gens qui reviennent et qui refont notre parti. waaw voilà justement loolu laa la bëggoon laaj est-ce que ñooñu mën nañoo indiwaat benn dynamisme ci biir PDS au moment où il y a des contestataires après les renouvellements. mais dans toutes les grandes familles il y a eu des contestations qui ont des années. Mm. la famille c'est ça la vie il faut avoir les capacités de savoir que fi ñu toll yi xaajaloo mënu fi nekk li moo am mais tout temps attirant responsabilité kenn ku nekk notre parti tous les jours vous entendez que telle personne tell personne telle personne mais du ndax du indi ay frustration si ñi fi toogoon bi ñooñu geddee dem mer dem xam nga xam ñu lu ñun mhm. fu nekk nii mhm. électeurs yi Ah. ñun électeurs yu gagné dañu tuutuñu la victoire compte. en dehors en dehors de la victoire y a rien. Mm-hmm. Mm-hmm. ce matin j'ai vu un article et un interview de Khalidou Diallo dans le journal qui a été conseiller technique qui a été ministre de l'éducation nationale oui, et qui a été conseiller technique de Macky mm-hmm. ils sont dans la même région ou peut-être même du même arrondissement. Mhm. mais qui, qui revient au parti. Mayoro était parti, qui a joué un rôle extrêmement important sur lui. Il y en a d'autres. Il est revenu. Et il y en a d'autres qui viendront du pouvoir. Pe peut-être oui. Mhm.